salaamaaleykum wa rahmatullah man la soxna Anta ma maa leen di présenté émission taaru jigéen fii ci Leeral FM 104.6 di ci ànd ak soxna Kumba jeudi bu jot 5 h ba 6h20 dinañ ko rediffusé waat 10h euh, ba 11 képp ku ñu bëgg jot bëgg a waxtaan ci biir émission taaru jigéen nag ñu woo ci 88 628 10 40 88 628 10 40.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 ñu ngi ñaan njéggal akub kawe suñu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen mbokk auditeurs yi ak auditrices yi kenn ku ci ne ñu ngi lay fekk ba fi nga toog jox la suñu loxoy xol ne la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaan borom subhaanahu wa taala mu oyofal yan bi ci seen kaw waaye tamit di doxantu ba ci barabu fajukaay yi képp ku fa nekk rek ñu ngi lay ñaanal borom subhaanahu wa bu fëgg sa bopp yëkkati la delloo la ci sa njaboot waaye duñu fàtte mukk ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw ñoom it ñu leen ñaanal borom subhaanahu wa mu génne leen fa te bañ fa dugalati kenn waaye di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun képp koo xam ne rekk jamono ji ñu toll ñuy wax am na ku cher ci yow ko ñàkk ñu ngi lay ñaana borom subhaanahu wa taala mu may la xolu muñ te yërëm ko xare ko àjjana bi la azab wala xisaab waaye tamit di nuyu sama ñaari invité yi tey macha allah taaru jigéen dafa àndaat ak yéen ci ñaari invité yoo xam ne macha allah ku ci ne rek suñ ko bàyyi woon mu def émission bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a taxawe di soxna ndey ab Diallo macha allah moom léegi miis ngeen ko ci émission taaru jigéen waaye tamit du ci ànd ak suñu mama euh, soxna Sata soxna Sata gay Seck moom xam naa moom it bu waxee di ngeen xàmme baatam lool ndax mu ngi def euh, émission bu am solo moom it ci rajo Carrefour macha allah ñoom ñaar la ànd ak tey sama émission taaru jigéen xam naa dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñuy doog a dugg ci suñu tam soxna Ndeye Abi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli auzu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irahmaan irahim alhamdulilahi allazi hadaana li haza wa ma kunna li nahtadi an hadaana allahu subhanahu wa taala bi qur'aani alkarimi rabbana wa bi diini alislaami azana wa faddalana ala saairi alajnaas wa jacalana xayra ummatin uxrijat linnaas wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada sayidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiina lahum bi ixsaanin ila yawmi diin ayuha almustamicuuna alkiram uxayikum bi taxiyati ahli aljanna allah wahiya assalaamu aleykum wa taala wa gannaaw bi nu sante bi subhaanahu wa di julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi naan xéewal ak jàmm yàlla na wàcc moom wàcc ay saxaabam ak ay waa këram ak képp koo xamante ni si topp nga ci yoonam ba keroog yoom ba keroog yoomal xiyaam gannaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu ñi nga xamante ne si ñoom ñoo déglu ci góor ak ci jigéen di leen jàmm di ñaanal bu baax ñi nga xamante ni si ñoom ñoo tëdd ci hôpital yi di ñaanal tamit ñi nga xamante ni si dañoo yore jàngoro nekkuñu ci hôpital yi waaye ñu ngi koy doxaale ñoom ñëpp yàlla yàlla fëgg seen bopp. di ñaanal tamit ñi nga xamante ni si ñoom nekk ñoo nekk ci bërëbu yarukaay yi. di di leen ñaanal yal na leen yàlla delloowaat ci seen njaboot. di nuyu tamit sëriñu daara yi bu baax a baax a baax di leen gën a encouragé. di ñaan yal nañu yàlla defal jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa ñu bàyyi suñu maman. Mm-hmm. Uh, auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. allahumma salli ala sayyidina mawlana wa ali Muhammad li ngeen fi uh, ubbee ak li ngeen fi ñaan lool moom duma ci teg dara. di wax rek yàlla mi nga xam ni dara tëwu ko. Mm-hmm. mu may nu ñu door ci bisimilah rahmaani rahiim eggale ci alhamdulilah rabil aalamiina. ci kattanam ak mbaaxam. ah yal na leen yàlla defal xéewal defal ko kilifa rajo bi muy Abdoulaye Baba Dieng. di sant bu baax a baax nag euh, techniciens yi. Mm-hmm. parce que feccum liir bu neexee nday jaat yi ca mbagg yi. Mm-hmm. te man chaque jour remarqué naa ko. boo ñëwee accueil bi dana dana dana dana dana rafet. Mhm. accueil bi dana neex ni ñu lay accueillir ba dugal ci studio mënoon na rek technicien laa sama place laa yem. Mhm. mais dina ñëw dana toog dana def yëpp doo toog place maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla bàyyi xelam. ndax nit ki boo koy ñaan da nga koy yàlla mu bàyyi xelam ndax nit moom xel rek moom moo ko yor. kon nag ñuy ñaan rek yàlla mi nga xam ni. Euh, ci kàttan ak càkkan ak mbaaxam la nit di def lu ne mu egg mhm. yàlla may nañu bañ a am benn gàllankoor làmmiñ mhm. ñu ñuy déglu ñu dégloo xel bañ ñoo dégloo xol mhm. yàlla bañ ñoo bañ a am benn dog-dog ba ba ñuy pare yaakaar ji ngeen am ba woomatam yal na ci yàlla def xéewal te ñuy déglu yal nañ ci jariñu ndax am na ci ñu bare bare ñu lu gën a xam waaye teewul ñu ngi ñuy déglu di bége waa barab bi bu baax a baax di nuy nag sama cheikh Adja Fan Ndiaye Seck di ko bége bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla rek mucc mucc la euh, zahirin wa baatinin di nuyu sama borom kër nag Tidiane Seck Cheikh Seck ma nga ma téyel njaboot ga toog fa di ma xaar te moo ba ma ko tàggoo daf maa bàyyi di nuyu awa mag mu ndaw euh, képp koo xam ne yaa ngi may dégg di wax rek ni maa ngi bége tam képp koo xam ne yaa ngi may déglu di wax rek nag ñu door ci bismillah rahmaan eggale ci alhamdulilah rabbil alamin ñu déglu la rek loonu wax rek ñu def ci sunu asaka yéene jërëjëf macha allah suñu maman Sata tey suñu émission rek ñu bëggoon a jaaraat tuuti rek ci aji màkk yi ndax fan yi macha allah taaru jigéen jugul di wax ci aj màkk yi pour lan pour ujaa ji gën a farluwaat rek gën a laxasuwaat gën a xam tamit lan mooy lan la ñu war a yóbbu lan mooy seen yóbbal loolu rek a tax ñuy wax kon dañ ciy jaar xam naa jaar bu gaaw ndax mhm. suñu thème dëgg-dëgg mooy lan la ñuy waajalee tabaski gi loolu mooy suñu thème dëgg. Mhm. Kansata su ma la bëggee laaj ci aj gi. Mhm. ñu ngi doon wax fan yi ci ñi nga xam ni dañuy dem aji te duñu xam lu bari ci seeni farata. ñooñu lan nga leen di wax. tey bu ñu <laughs> demee daanaka dañuy tëñëx tëñëxe. duñu xam fu ñuy taxaw duñu xam fu ñu war a tàmbalee. ñu la ciy bàyyi nga. loolu moom euh, li ci baree bari erreur mënu ko weesu. ndax euh, dañ daan wax xam-xam ci mag ñim laa ko doon déggee. Mhm. ñu naan da nga jàngi xam-xam ba Chine. Mhm. tey nag leeral gii ma toog rek. Mhm. tey bu doon ci at yi ci gannaaw nit bëgg naa dem màkk wala demagoo ci boo leen di déglu. doo dem di jàngi fenn. am na ñoo xam ci net bi lañ leen di jàngale. am na ñoo xam dañ leen di jàngal lu ñuy taayaa am na ñoo xam dañ leen di lu ñuy defi lii defi lii defi lii loolu lépp. ci commencement ba boo ko doon def ndax euh, base ba moom am na ci xam weesu nañ ko pare mm-hmm. ndax éducation de base mënu ta weesu xale yi nga déglu ñoo dugal euh, euh, générique bi xam nga xale yooyu tey jii tey jii boo leen doon wax ba màkk tey boo leen fa yóbbul à 10 ans 12 ans danañ def seen warugar parce que ñu ngi koy déglu mais mm-hmm. ñi nga xam ne nag dañoo dem ba ba passé ko loolu la ñuy wax loolu moom man ngay jàngaati kon nag kiy jàngaati bu mu am rëyu jàngaati bu mu am rëyu ki koy jàngal mu déglu ko mm. ndax nit ñee ngi dégg jàngale léegi ñi ngi def ñi ngi leen di def ay réunion mm. looloon daal mooy déglu leen te kuñ ci def nga teey ànd ak sa xel mm. bañ a parax-paraxi ndax nit ki liñ ko jàngal lu mu ci doon ci ay 10 jours wala 15 jours sax bu la ko jàngalee danga nga koy booleeg akub yar akub teggin akub déglu akub nangu te bañ a téye bañ a bañ bañ ëppal soo defee loolu rek yaakaar naa ne lu ci bëree bëri dañ ci génn macha allah macha allah am na solo nit moom defe naan jàng du wees niñ koy waxee lépp loo bëgg a xam rek boo ci àndeek yar ànd ci tekk ak tey dina leer sa bopp balaa ngay dem soxna Ndeye Aby yow diñ lay laaj mm. mooy yow it lan ngay conseiller ujaa ji ci wàllum xam-xam bi asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum ma leen di conseiller mooy di leen xamal ne jaamu yàlla kenn di ko làmbatu mm-hmm. danga koy xam ndax ak dafa nekk benn farata boo xamante ni sii mm-hmm. ci ponki islaam yi la bokk mm-hmm. ni nga war a xamee say faratay julli xam ni ngay woore xam ni ngay nattee azaka aj tamit noonu la aj benn ponk la ci ponk islam yi mhm. kon du tey jii da am sa xaalis rek dem màkk ñëw ñu ñëw ziyaare si la ñu ni dem na màkk kii mooy alaaj wala kii mooy ajaa mhm. du noonu dafa nekk jaam yàlla boo xamante ni si da ngay dem nga mottali ji ko mhm. te yaa te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne alxajjul mabruur laysa lahul jaza ilal janna nee na aj boo xamante ni si dañ koo nangu dara du fayam lu dul na mm-hmm. kon yow loolu war nga cee góor góorgóoru bu baax a baax a baax mm-hmm. balaa ngay dem nga xam say farata. balaa ngay mm-hmm. dem nga xam say farata te léegi ni yaakaar naa loolu yaatal nañ ko ku bëgg a xam di nga xam. nit ñaa nga créé ay ay kii yu bëree yu bëree bëri yoo xamante ni si boo bëggee jàng rek sa xam-xam. avant ngay dem màkk dinga ko xam moo gën a wóor. nga dem ba foofu di laajte wala ngay làmbatu. dëgg la ndax jaamu yàlla daal moom. danga koy da nga koy def ni nga xamante ni si noonu lañ ko noonu lañ ko digalee. Mm-hmm. waaw te aj tam aj tamit moom moo ci raw daal. Mm-hmm. waaw ndax da ngay nekkoon fii da ngay gis ñoo xamante ni si dañuy bàyyi bay dem màkka mënuñ sax xul yaa aywal kaafirun man maa maa dem benn dëj gis benn meer. ñu koy laaj mu naa ah xul léegi mën naa génn waale gi <laughs> ah lii ilaa fi moom mokkal naa ko xoole yow lool magum jëmm dem ba am ay sët uh-huh. dem ba war a dem màkka di mm-hmm. jàng ay saar ah. donc est-ce que moom bu demee farataam dina fa mat wala déet kon daal may may may conseiller sama sama mbokk ujaaj ji di leen wax ni ku xamul mhm. yow la neex balaa mhm. ngay dem màkka boo laajtee dinañ la wax yëpp bu ko defee nga xam say farata mhm. soo demee ñu mën laa ñu mën laa nangul sa sa sa kii waaw macha allah ci kaw loolu sax euh, waa organisation abi muy organisation pour la bienfaisance islamique dañoo organiser benn weekend bu am solo le 20 ak le vingt 21 mooy samdi ak dimanche. weekend boobu pour lan la ñi nga xam ne dañoo war a dem aji màkk muy ujaa ji moo xam góor nga wala jigéen. ibbil nañ leen bunt bi. pour nga ñëw lan lañuy def mooy jàngal la nan ngay aje tegal la ay vidéo yoo xam ne dañ lay wan nii ngay ajee. premier jour bi muy le 28. day nekk euh, jour boo xam ne. danañ leen expliquer. aj gi nan lay demee. beneen jour bi ne daanaka pratique lay doon. day mel ni yow yaa ngi ci biir màkka mhm. wala yaa ngi ci Médine di def say say mhm. farata kon loolu ñu ko yëgal képp koo xam ne rek mhm. bëgg nga aji nga teel a inscrire ndaxte dañ ko limité dañ ko limité ci ay nombre kon suñu yeggee ci suñu amee nombre bi ñu soxla rek dañuy arrêté képp ko mu yitteel nag da ngay woote ci 77 778 20 64 wala nga woote ci 77 480 33 14 mu ngi amee nag ci biir ONG abi mooy bi nekk seen chaise bi nekk euh, montagne fi rajo leeral bi nekk incha allah defe naa ni moom boo nee rajo leeral laa jëm wala nga ne abi laa jëm muy taxi muy voiture muy loo mënti jël dana la indi ba nga yegse mm-hmm. xam naa ñu bàyyi suñu technicien mu dugalal ñu publicité bu boobu nga xam ne bépp ujaaj bu mu intéressé rek dina gën a leer ci sa bopp incha allah. asalaamualeykum mbokki jullit ñi mbokki waa Louga xéewal bu am solo te neex lool ci waay ujaaj yi waa ONG ABI di association Beneficence islamique de Louga ñooy amal atelier de formation ngir waayu ujaaj yi ñi ki la le 20 juillet 2019 ak dimanche. waa ONG abi ñu ngi xamal képp koo xamante ni góor nga di jigéen di waajal aj 2019 ñu ngi lay waajal formation bu am solo ana nakal ni defee seen aj buñ àndalee seen git wala ñu bañ a ànd seen git ñu xam lan mooy seen wareef fële sa makkatal mukarram ak Médina sam bi nekk si 16h maanaam ñeenti waxtu si ngoon fii si Montagnor Louga danañ amal lu jëm si wàllum théorie naka la ñuy ajee ak yan farata moo la war yow miy aji dimanche di ñaar fukki fan ak benn dinañ amal lu jëm si wàllum pratique bi wane leen ay filmu projecteur yu am solo maanaam ujaaj bi ni muy déparé ci aéroport bu mu jugee ba ni mu àggee ci makkatal mukarram ngir def li nga xamante ni mooy warteef lu jëm ci wàllu aj bokki jullit ñi bokki wàllu ga ONG abi ñu ngi xamal ni képp koo xamante ni yaa ngi waajal ngir dem makkatal mukarram ngir def sa juróomeel ponk ñoo ngi leen woo ci formation bi kon képp koo xamante ni bëgg nga am lu la leer mën ngaa woote ci numéro yii 77 778 20 64 wala 77 480 33 14 ONG Abi ñu ngi leen di ñaanal aj ak jàmm jërë ngeen jëf. لك والملك لا place yi nekk da ko limité. waaw macha allah ci publicité boobu kon xam naa leer na nañ ah, macha allah léegi ñu ngi ci biir émission taaru jigéen ku bëgg a dugg waxtaan ak euh, ñun rek ci thème bi. ñu ngi lay wax nga woote ci 88 628 10 40 88 628 10 40. xam naa nag du ma tëj wàllum aj moom mhm. te laajuma sama maman mhm. yàq yi nga xam ne mhm. jigéen ñi ni ngi koy def ci buñ jógee màkka ndax buñ nee dem màkka mooy dangay dem def sa farata raxas say bàkkaar ndax neen ku ko def te yàlla nangul la ko yaa ngi mel ne liir buy doog a juddu da gis koo xam ne ñëw na folklore bi woo sabarkat yi nit ñi tàmbali daanaka yow day mel ne dangay tàmbaliwaat ci bàkkaar kon lomit looy wax ci ah, sant bu baax a baax nag uh, sama mag ju ma bokkal ndey ak bàyyi may sëggee El Hadj may sëggee dafa war a mm-hmm. dem penku ma nga Jurbel bur ki dem la fi ñëw di ma tàggu mm-hmm. yal ko yàlla defal xéewal mu dem ci jàmm dil si jàmm waaye da bari loo xam ne lii li ci ëpp éducation de base ba ca mm-hmm. commencement ba ak yar bi ak it boole ceeg nit ki day am fulla kenn du ma poussé ci dara nit ki day am fulla di bañ a toppandoo wala la ngay toppandoo di am limite toppandoo dafay am limite. mu ngi mel na ci maanaam ni ngay limité saw yaram. am na ci ñoo xam ne damaa jëlale dem màkk ba ñëw. mais ñu ci bëri feebar lañu fay jëlee wala son ndax duñ am limitu sant sekk wala jaww ba nu la neex def. lu la neex lekk lu la neex topp. doo am limite ci sa yaram nit ki daa war am limite. ci yaramu boppam ak li muy lekk limité boppam. Mhm. régler boppam. Mhm. ba boo boo fa jógee sax mën a nekkaat nit. dëgg mhm. waaye nekk en règle fii dem wir boo yeggee wiridee fa ndax doo la ngay lekk sax yow la nga daan lekk doo ci limité da ngay limité loolu. nga dikkati nag di toppandoo. modèle kenn du ko bañ toppandoo kenn du ko bañ du baax. tey lii nga sol. tey bu ma demoon di ko valeur mën naa jar cent cinquante mille wala mu jar leneen wala leneen. mais man naa xool lii nii. mais mën naa koo ñaw mais mën naa koo seet modelu xartu ma ñaw ko ko. Mhm. mais duma fekk loo xam ne di tey jii. jasneer la mu cher bay bëgg a dee ma gis nga sol ko ma di ko toppandoo jëm jëndi ko mën naa jël modelu ñaw bi te su ma ko solee mu nekk xartum rafet. Mhm. su boobaa dama laa toppandoo mais tey ku ko xool dana ñaw bi yiwu la ñaw bu baax la. Mhm. mooy maanaam du ma toppandoo lu ma mënul. yëgal ñoo xam ne ñii jii ñooñu ñëpp da leen di tàggu pour am na ñoo xam dañu lay tàggu pour course mhm. pour nga di leen ñaanal dem ci jàmm del ci jàmm waaye ñaan goo xam ne ñam bu ñuy dem jox la bu ñuy del si ñëw toog di la kii de nangam laa ko joxoon tey loo ko mhm. joxul mu ne la ma ko joxoon bërki dim joxuma nangam nga bëgg a boole la nga joxe bëgg a boole togg ya bëgg a boole yàq ya boole ña ngay ña nga lay filmer ña ngay way ñëgal dama ni la toppandoo bi ak def loo mënul mhm. boo da ngay <laughs> noonu aj nit ki si nganale doy na mais loolu nit kee ko def boppam nit mhm. bu boobaa kenn du ko ceeb yar xar xas ndax boo amoon sa menum xar togg ko togg say añ defar sa blaax ñee fa yore yendu mhm. yendu fa nga sant yàlla ndax dem ba li ci ëpp ak euh, a def loo xam ne kenn euh, nit ki mënu ko mënu ko mhm. loolu daal sonn sa bopp la dëgg la soxna yaa bi <laughs> waaw dëgg la mën a xanaa li ma bëggoon a wax sax maire bi wax na ko euh. mbirum toppandoo boobu xam nga tey jii boo jugee màkk boo boo ñëwee rek nit ñi li ñu njëkk a séenu ci yow dafa war a nganale. Mm-hmm. bu ñëwee ña ngay xool nag wa nga war a rey. togg ya nga war a togg boisson ya mhm. te xoolal paasu màkk rek déjà dafa métti mhm. paas bi nga paas ak dem màkk ak li nga war a waccee sa njaboot mhm. transport ba ngay argent dépense ba ngay yóbbaale loolu rek dafa métti boole kook xam nga aj dafa métti boo fa demee boo ñëwee moom sa yaram yëpp dafay tas li nga waroon a def mooy nga toog noppalu am na sax ñoo xamante ni si léegi nand nañ ko dañuy jóge màkk tëdd Dakar dëgg la toog fa toog fa noppalu fa bu mu yàgg ñu ñëw bu ko defee kenn du leen sonoon sax ci nganale waaye surtout bu fekkee nga am ñaari soxna léegi tey jii nii ñoom ña ngay préparé ba nga demee mag kenn mhm. ku nekk ma ngay yëgle kenn ku ci nekk ma nga naan sama morom duma ko yóbbul dëgg la kii invité fii kii invité fële dañ mhm. dañuy dem ba dañ ciy terale sax dañ ciy teral ay njëkk ay njogo lépp lépp mhm. lépp ci aj gi te aj comme ni ma ko waxee woon di benn jaamu yàlla mi ngi mel ne jii nii nga sol sa yére dem ca jàkka ja julli est ce que boo ñëwee dañ laa war a teeru dangaa war a dem julli yi ñëw ñu teeru la aj nag noonu la mel mhm. benn farata la boo xamante ni si dangaa demoon di ko mottali ji kon yow boo ñëwee yow yaa war a am sa fullay bopp ak sa fayda ku mhm. mën a ñëw ziyaare si la nga am sa kurus wala nga am sa kol nga jox ko mais wala sa zam-zam nga xëylil mhm. ko jox ko mais bu mu doon puukare boo xamante ni si ndax du force ku dem aji ñëw euh, nganale woo du caagee ni yow sa aj nanguwun ko wala baaxul un contraire tey ji yow la ngay yàq boo boo boo ca jógee conséquences yëpp ci sa kaw lay mm-hmm. lay lay dalaat yow yaay toog di di di di am say soxla te kenn du la ko fajal mm-hmm. loolu la waaw nit ñi doo leen topp ci li nga xamante ni si moom leen bëgg da ngay xool yow sa diine lim la lim la digal ak mm-hmm. yow sa digganteeg sa boroom nga def lool bul xool ni mankat bu ma jógee màkka su ma nganalewul kon nit ñi dan naan ma lu tax nganalewoo nangam nangam lool doo ko xool yow xoola sa digganteeg sa borom xam ne lii farata la dangaa demoon di mottali ji farata ñëwaat sàkku ci tuyaaba wante di sàkku tuyaaba boobu muy wëlbatiku ay bàkkaar topp la ci loolu moom euh, da ngay waaru moom te comme ni ma ko gisee léegi léegi ngana lay dañ leen di teg ci chaîne yi mm-hmm. da ngay gis dañ koy filmer dañ koy filmer mm-hmm. da solo fukki solo ak juróom nag fukki solo di dem bay ba te mari bu di la dékk loxo yi ngay ñi xam ne ñoom ñooy ñëw ña nga lay observer di xool ndax or nga takk wala lan nga takk la mu takk ca loxo ya gis ngeen baat ya la mu ca takk laa mm-hmm. kii de xanaa jaay na nangami million ci or mu jaral la yow nga sacrifier sa bopp ndax lan bésu ngan nga ak la war a séenoo est-ce que ñëpp ñëw ñëpp hmm. mën nga leen a jox kol ñëpp mën nga leen a jox sijaari koo jox kurus mu ne ah moom day xoola kurus gi da la ma jox wala hmm. moom de kaas zam-zam bi la ma jox te fekk na yow bu fekkee dafa jox dafa jox ñëpp si jaada wala mu hmm. jox ñëpp kol wala jàllaabi kon moom kon moom fu muy fu muy fu muy jëlee bi da nga gis ku joxee ba sëricëm jeex ah. nga mujj dem di lebi pour joxe sëricëm ndax ma sëri ca Sénégal moom du jeex fii juróomi weer ku la roon nel ala saba sëri koo joxul woon dala koy laaj te bu ñu xoolee lan moo waraloon nganale ci Sénégal gii donc daanaka nganale moom boo dee xool bariwul ñu koy def mm-hmm. mais ñun dafa nekkoon aj Màkka dafa metti woon da nga daan demee ci bato nga xam ne yow boo demee mën nga yàgg ci yoon bi mën nga def ay 6 mois def ay 7 mois sama goro El Hadj Samb sunu sekk euh, papa yi si jaan ñoom ci mhm. ci bato la ñu demee woon ci bato waaw 3 mois daanañ ko am ci yoon dëgg la da ngay yàgg ci yoon bi léeg-léeg sax dañuy defee ni dee nga ci yoon bi mhm. bu ko defee yow boo ñëwee nag mu nekk surprise ci nit ñi ndax defe woon nañ ni dee nga wala dootoo ñëwaat mhm. ñu ne nag ah diw ñëw na nañ ko ganale dëkk bi ñëpp ñëw toog sa kër nga bernde loolu moo ko waraloon mais léegi moom nii ñu koy defee moom defe naa ne puukare moo ci nekk mm-hmm. puukare surtout jigéen ñi mm-hmm. ndax góor ñu bari ñoom la ñuy wax muy bugguma ko mm-hmm. bu ma ko kenn defal léegi bu ko defee nag wujjee daal di nag ñoom ñoo ñooy nganale ñoom loolu danaa man maay nganale dégg nga yow yaay jëndi nag la fa am lépp yaa koy def ku góor ko loxoom jógewul ci poosam déedéet lépp ñun jigéen ñi ñoo koy créer suñu paree nag kenn ku ne nag bu tàkkusaan jotee nga indi sa valise nag tàmbali nag di yebbi yow demoo màkk demaane woo màkk loo joxe sëriñ looy joxe yow kañ doo nekk ba ba dem waaye duñ ko def ñun ñooy mujj jël lépp nag tànt nag ñu naan aaw ba toj na fa wala ñaareel ba toj na fa waaw ñetteel ba mel na ñaareel benn man bu ma ko mënta toj nag nooy def duma ca sonn yi lépp li may sonal de mais foo jaar foo jaar yàlla wax ji rek lañ ciy am mais foo jaar da ngay def loo mënul foo jaar jooju ngay bàyyi mhm. du ma def lu mu mënul wax loo man def loo man tëdd boo tëddee nelaw sam papa da daan wax mbu bu ñëw daje xew mhm. man ko lan la mënoo basin ñëwee solol bu xartum ñëwee solol bu leneen ñëwee solol <laughs> bu dee añ la bu ganaar ñëwee lekkal bu yàpp ñëwee lekkal bu ceebu géej bu neex ñëwee lekkal boo tëddee nelaw bor du la ci fekk luy ndey loolu nan ma mm. xas xas yi am ñetti fan mm-hmm. teraanga jàng fa nga mën a yem nga doon comme ni nga mm-hmm. waxoon naan dañ leen doon nganale bu njëkk xam nga trois mois nga daan dem mm-hmm. mais li tax ñu daan ñëw di la nganale ñoom xamuñu lu nga gis ku dem ati at boo ñëwee di leen la mel ba ñuy wax nangam nangam nga jëlee ci ay recueil la nga mhm. jëlee ca loo xam ne ka demul woon màkk ka dem màkk ba ñëw mooy toog nag delloo si ko ci yàlla wax ko lu mu jëlee ca màkk waaye kooka moom kii li ngay wax nii mhm. ki ki nuy teertu moom ma nga toog fa mu toog di solo ko suñu rek <laughs> Seydina Mohamed di di di di joll rek ngay joxe xaalis mhm. mooy problème bi ma ne ko di baatare ñu naan gana diw ga. <laughs> lekk ak naan ga dara manqué wul. dara manqué waaye ganu diw ga de moom daa mel ne ku jugewul màkk boo ko xoolee kanam nga na mu furee. moo nga gis jigéen ñoo xam ne bu ñuy dem màkk ci la ñuy profité. Mm-hmm. jàmb seen i tip. di xeesa di xeesa pour lan bu ñuy ñëw. na yow da ngay bañ da ngay bëgg boo ñëwee nit ñi mën laa. xool yow doole màkkaar nga ma wax de. yow laa lay wax waroo ko teg waroo di wax xeesal nga def loola kon yow bëgg lu neex nit ñi. ba am bàkkaar nit bëgg a defante. zéro aj laa gis de kon dem ba ñëw rek <laughs> kon moom demoon fii ci village yu jëlee lii ah, dem aji fi wàññeeku moo gën. mais loolu mère Sata bari na ci de bari na ci ñoo xam ne bu ñu yeggee. ñu dara lu defar seen yaram gis nga defar seen yaram jaral na leen du ñu sonn mais nga génn ci yàlla ak yonent bi mhm. parce que yàlla ak yonent bi moom moom nekkatu ci dëgg la nga ciy génne yàlla ak yonent bi parce que yàlla ak yonent defee boo yee moo tax di def li ñu war a wax maa ngi di ni mu sonne ci ajam gi. Mm-hmm. moom da ndeysaan jigul sama nga ah. tëdd fa mu tëdd. te normalement nag aj goo xam ne moom def nga ci sa fulaak sa fayda. Mm-hmm. boo ñëwee defe naa ne. boo ñëwee da ngay sonn da ngay sonn da ngay sonn di nga indaale sot indaale tooy mm-hmm. sonn. feebar léegi nag yow daanaka am na ci jigéen ñoo xam ne. jamra dañ koy yóbbante. sànniwaaleel ma ko. yow loo fa doon wuti. xoolal loolu rek. sànniwaaleel ma. léegi yow daanaka coono gi doo ko dañ ndax dangay bañ a sonn. pour lan pour bu ma ñëwee. damaa bëgg mel dama bëgg a jekk dama bëgg bëgguma jeex am na ñoo xam ne du ñu bëgg jeex te boo fa sonnee di nga jeex. comme ni nga ko doon waxee sànq keroog jaar naa ci tuuti tamit topp lekk ga ba indi sa bopp jàngoro indil sa bopp jàngoro indil sa bopp jàngoro keroog maa ngi tooñ sàmbeeni see <laughs> <laughs> moom macha allah moom lekk ga naan ga moom boo limité wul sa bopp boo may wala nga nale googu ñëw bala ngaa ñëw euh, bala nga ni salaamaaleykum lu dox nga jënd nga ko boo ñëwee bala ngaa ñëw sa xaalis jeex mbaa bu jeexul it nga ku la joxoon sataa ma joxoon 5000. ay sata na ma koy def bind liste. Mm-hmm. turu sata mm-hmm. sata lii sata yow doo tal sax màkka ja. doo tal ren. Mm-hmm. nit ki day am fulla ak dignité ak fayday ku ma mere ku ma balaa yamale lii bu ma ci dee fekkee du ma rus. mooy loolu wër boobu ñuy wër di tàggoo tey jii par exemple koo dem tàggu ko. <laughs> mu jox la 5000 boo ñëwee da nga ko war a doubleel. loolu moom moo fi am man li ma wax man de bu doon eh, xoolal eh, bu soxal bëgguma laa dog foofu dama ne man bu doon maay dem màkk te ñu ngi may déglu ku ma jox 5000 ma leen di ma aji moo xam ngir ma jox su ma demee daal leen ko sànni ci xabru ya ñaanalal leen ca bu ma dil see mooy loolu mhm. dëgg la dëgg la mais nag gis nga ñun jigéen ñi ñoo war a am ful la jële ko fi defe naa bu ñu ko fi jële woon dana jeex ndax ku ne xam na ne kuy dem màkk soxla nga xaalis soxla nga ndimbal ndax màkk loo fa yóbbu ci xaalis du doy du doy loo fa yóbbu du doy kon nag ndimbal yi la nit ñi di jox mhm. nit ñi tamit nañ jàpp ne lii dimba ndimbal la oh, ndax man it bu ëllëgee am na ñu koy sax mhm. am na ñoo xam dañ la koy jox rus laa ziyaare si sax dëgg la ndax bañ la jox la dara dëgg la am na ci exception yow tey su fekkee da ngay dem ñun ñu dajale suñuy junni junni jox la amal na la njariñ mm-hmm. boo ëllëgee man may dem ñeneen dajale seeni junni junni jox la te séentuwuñ ci lenn kooku ndimbal lay doon mooy ki feebar nga dem hôpital seeti ko xanaa doo ko seet nga naan ko bu subaa ma ñëwee dag delloo la nga seeti woon kooku appui dimbal nit ki la rek Mm-hmm. <laughs> kon loolu ñun jigéen ñi nañ ci bàyyi xel xam naa ne mm-hmm. aj gi moom buñ ci dee wax mm-hmm. duñu duñu doonee bëgg nag Adja bu baax a baax moom dem na maaka waaye xam naa ne moom ci ceeb yi aj na sax normal mais dafa nekk ca yàpp yàpp rek bu ñu bis a jàpp <laughs> <laughs> ah man de gis naa koo xam ne ba mu ñëwee soow rek la doon wax moom yii ñee de seen soow yi da koy juutal te du tuuru soow yoo xam ne moom daal lool la ne loolu lay nettali ca màkka macha allah di leen ñaanal rek yàlla na leen yàlla nangul seen yonent bi sallallahu alayhi nee na aj goo xamante ni si dañ koo nangu moom dara du fayal lu dul àjjana dëgg la kon jàmm yi nga xam ne ñoo góor góorgóorlu dajale mm-hmm. seen xaalis jël ko dem mm-hmm. ba màkka yàlla na leen yàlla nangul seen aj amiin amiin euh, bëri na lu nit di def ñàkk xam la rek xëy na xëy na ñu dégloo ah bañu dégg ñu wax danañ ci danañ am luñ ci jëlee danoo xamul rek nit am fulla la def say farata soo mm-hmm. bokkeeg néeg ñu xam ne dañoo taayal ba mel ne man dëgg la bu buñ la yóbbaale xamal lan moo la fa yóbbu salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatulah. waaw soxna si naa def. soxna Anta maa ngi leen nuyu. ñu ngi ah soxna Fane Ndiaye. <laughs> a baax. ñu ngi lay fay nga du ma jël seen temps loolu ndax am na lu ngeen di war a song lu am solo. dëgg la dëgg la. waaye gis nga aji màkk bi. Mm-hmm. li ci nekk kenn mënu ko wax. dëgg la ndax yu fekkee da ngay dem. Mm-hmm. fu ne nga dugg fa tàggoo. Mm-hmm. yéeg oto wàcc dëkkoo dëkk. bala ngay dem épuisé nga sonn nga. dëgg la. naan diw dana ma mere diw dana def nii. Mhm. te téléphone yi ne fi. Mhm. koo wax mun la tàgguwuma. Mhm. ba pare boole koo tàggu ji mu am lu mu yëkkati jox la. kooku warul xaar dara ci yow. dëgg la kooku dafa war a bég. ndax kuy dem màkk loo ko jox rek mbégte nga ko war a def. ndax mu nga jëm ca sangu-sang ya. te lu mu fa yóbbu doyul. kon kooku bul xaar dara ci moom. dëgg la ndax tuyaaba ga am. moo ëpp gis nga ki dem màkk lam la la war a mun a jox. buy mm-hmm. sori ca màcc dëgg sori ci màkk dëgg dëgg dëgg mm-hmm. tàndarma ak zam-zam dëgg la moo fa dëkk mm-hmm. leneen dëkku fa même kurus yi sax da nga koy liggéey ci yeneen dëkk yoo xam ne di muy leen defal publicité waaye daal tàndarma zam-zam ku jóge màkk bu la ko joxee doylul dëgg la ba ca des nag mooy euh, dama jóge màkk man mii ñëw am ku doon ziyaare ji booba temps ndomba tànkal yor fii ci Louga mu toog ci biir nit ñi mais man li ma jaaxal mooy ñi ma ziyaare ñëpp dañu ñëw feebar mais Adja Fandiaye Seck moom dara jotu ko man am sama mbokk toog su ni macha allah ñu xam naa dafa dof man ko déedéet da koo jaaxal. <laughs> waaw màkk boo fa demee ménager sa bopp. Mhm. boo ñëwee doo feebar. dëgg la. ndax yow koo romb ci mbedd mi gis nga yi ñuy joxe xéewal yi ñuy maye. Mhm. nga topp ko. Mhm. yaa ngi rey sa bopp. am na waxtu yoo war a dox bàyyil naaj wi. ndoxu robinet yi bàyyi ko fa jëndal sa Evian nga naan ko. li nga war a lekk nga saytu ko. Mhm. bëccëg bi bu ngoonee nga seetlu woyof nga lekk ko. macha daal boo lekkee loo war a wax euh, lekk. Mhm. dox waxtu wi nga war a dox di nga aj ak salaam. te yàlla bu ko ci feebar. Mhm. bi bu fekkee da nga dem rek lu romb lu rafet nga jënd. nga jënd di am jafe-jafe bala ngay ñëw am jafe-jafe xaalis. koo romb ni ko ndax doo ma dimbali wala yi nga jën jëndaatoon sax. nga di ko jaay boo koy jaay. waaw waxuma la nag boo ñëwee nag moom ganale gi sax. yàq bi la ñu bañ waaye dajale say mbokk jox leen ñu lekk jox leen ñu naan. dëgg la waaw ah, kooku mu bañ a ànd ak benn folklore. Mm-hmm. bañ a ànd ak benn puuk rek. maa ngi leen nuyu di leen sant bu baax a baax te li ngeen war a dugg nag dama a dugg de waaye bu doon sama sago de <laughs> ndax tabaski bi tamit dana tas dëkk bi la dëgg la bëri def mm-hmm, mm-hmm. la macha allah sama gi sama jabar la mm-hmm. muñal nañu li ñu am waaw koy jërëjëf maa ngi waa Leer FM yëpp di leen jox rendez-vous nag incha allah rek euh, alxamis bii di ñëw ba soobee yàlla incha allah <laughs> waa kañ kooku suñu maman la moom allah muy wax lu am solo ëppoon na moom mu bañ a dugg Pape Ndiaye fu ma dégg rek fu ma mm-hmm. dégg rek dana dugg dafay yàgg ndax depuis Elisa Ahmed Fall lañ àndoon mm-hmm. depuis boobu ba léegi dul tàqalikoo lu muy def dana ma ko wax mm-hmm. waaye mi ngi doon di ma gërëm ndax di ma baaxandi dif ma wàccee kii ni ma daal gisuma bu ñu dóoree duñu xasee duñu la wax dara waaye duñu la jox dara ah, moom daal duñu dóori duñu la tere <laughs> duñu la def dara waaye moom daal mu ngi noonu daal jàmm daf ah, neex jàmm ji daal moom bari na fa sant bu baax salaamaaleykum aleykum salaam Soxna Anta baal ma àq de damay nuyu baax baax bu mhm. baax ak émission bii nga xamante ni moom laay def ni ma ko tëyree bi ma nekkee ci jafe dëgg la macha allah. Mhm. ko. macha allah mu ngi lay dégg waaw naa ko ziare oustaz Makhtar Fall. Mhm. bu baax a baax a baax a baax. xamante ni rek ñooy yaayu waa kay merci beaucoup. macha allah <laughs> waa kañ jërëjëf ci dugg bi man mi macha allah bi ma xamee ne sama mbokk la sama deret la yàggul. mais avant ma koy xamit jàppoon na ma bëgg ma lool nag. gis ma rek bëgg ma loolu tamit euh, ñu ngi ko ci sant bu baax di continuer suñu thème rek xam naa bu ñu toppee aj gi nag moom duñu <laughs> dugg ci thème bi nga xam ne tang mooy bëgg a yëngal jamono mm-hmm. thème bëgg yëngal jamono muy tabaski gi ñu jëm nga xam ne benn fan la wala nga ne ñetti fan la waaye day yëngal biir kër yi jigéen ñi mayetuñu jàmm seen borom kër yi ci lan jesneer laay jënd jesneer moom toj na jamono ji xar moom dikkagul sax moom ne xar moom par la force la mais jesner yeeg cheveux naturels yi moom mu ngi toj dëkk bi tansata ñu bàyyi la foofu nga soññaat jigéen ñi rek ñu xam ne loo xam ni benn fan la wala ñaari fan la wala ñetti fan la tamit bu mu tax nga yàq sa sëy mhm. ndax li bu ñu fàtte ni benn baat mën na njagasal sëy à vie benn baat booy wax sa mm-hmm. jëkkër rek mm-hmm. fu mu ko xalaatee xol bi di bëgg a génn mm-hmm. nañu maytu loolu ñun jigéen ñi te tàmm na nag fu ñu meree rek wax loo xam ne ëpp na aha loolu li koy indi lépp mooy li ma waxoon rek éducation de base bi ak yar ba ak doylu ndax doomu aadama bu doyloo dara du fees bëtam lu ñëw mu xam ni loolu loolu mën nga ko cee am waaye def loo xam ni lii ëllëg ki si biir man damaa jëlale jëkkër ji mën na la ko nangul mën na laa jëndal xar mi nga bëgg mën na laa jëndal yëre yi nga bëgg ndax bëgg la ndax nit ki ku mu ku mu bëgg moom lu ne mën a koo defal mais xoolal suite ba mm-hmm. bu liggéey doo nelaw ña ngi lay ña ngi lay woo woo police mm-hmm. ña lay woo tribunal ña ngi lay yéeg wàcc wala bu dul looloo sa xel du dal yaa ngay fay sa téléphone bu guddee doo xam looy añ doo xam looy reer doo xam looy ndékki ña ngi lay fayeeku ba nit ñi danaan xam sax ni mm-hmm. la nga soloon moomoo ko dëgg la lu ko fi jar la ceeb la nga xam ne lii tey jii comme ni may wax leeral mhm. ku ko déglu da nga xam ni xar ma nga war a jënd <laughs> dimension ba nam wala toll nam ta da nga ceeb euh, euh, euh, tabaski mhm. tabaski mu normal te yàlla daloo ci defal bakkaar waaye fekk sa jëkkër nga jënd loo ko loo xam ne lii am na ñoo xam mhm. damaa jëlil jëkkër gi mais pour wane ni folie de grandeur pour wane ni maanaam dara leen jaral seen jëkkër ñu ne ko ma doole la nangam nag yërëm xar bu rëy rëy te loola da koo projet jàmbur. Mhm. xaalisu jàmbur dajale ko leb ko bu liggéey ci biir nga sol ko ni sugg am na ci yoo xam ne yére bi ñu ki sol sax du ñawlu sax duñ ko sol ci bis bi. Mhm. ci ëllëg sa lañ koy sol. bu dee yàpp wa daanaka dañ koy xool ki nga xam da nga koy rey ba pare lañ ca man rek nga cay def. dëgg la bu dee yére sa armoire tey mënoon ngaa denc loo xam ne lii. Mhm. ay année la woon. nga génde ko ndànk xot euh, euh, ñawlu ko ñawal ki say doom defaraat ko ba ku ko xool sax da ngay defee ni ci actualité la mhm. fekk ba nga ko dencee yàgg na yaa ko takk defar ko <laughs> mu tam ba léegi sax ñu ngi ko mën a def ndax am na ñoo xam ne fukki yëre lañu yor musuñu koo sol musuñu koo laal yenn yi toppandoo gëma di ko waxoon rek moo dikkaat bu njëkk période tabaski bu daan mm-hmm. waaj a ñëw cuubkat yi dañuy fees dell mm-hmm. xam nga lu tax yére ba nga soloon daaw jéeg mhm. da nga koy dem cuub beneen couleur nga sol ko rek kooku góor ñee ko def góor lay cuub rek maa su dem rek ñoom trois batan am ñoom amuñu ko néeg boo dem six batan la benn ba la góor ga moom dëgg la moom la dañuy cuub rek <laughs> waaye léegi da ngay xool cuubkat yi daanaka amatuñu client ndax chaque jour yaa ngi xotti lu bees chaque jour yaa ngi xotti lu bees bu njëkk da ngay cuub yére cuub ko cuub ko ba yére ba mujj xotteek nga doo koo bàyyi <laughs> <laughs> waaye léegi jigéen ñi moom wax dëgg fa yàlla fi ñu jëlee tabaski gi Ndeye Abi peccorga yi wujje gi ba ci xale yi yow da nga naan ko samay doom lii la ñuy sol ndax dañoo nekk ak seeni naw laana xale li doo ko solal la base baa mais yow yaa yow yaa imposé ne samay doom ñoom it jesneer laa leen jënd na dañoo nekk ak seeni nawle commencé di dugal bopp xale yi ci dañoo war a kujjante seeni biir doomu bàyyeeg doomu yooyu daal asalaamaaleykum wa rahmatulah moo tax ma ne yonent bi sallallahu alayhi dafa ne fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mm-hmm. xëy na lii waxoon nañ ko sax waaye dañ ciy jaaraat jaar bu mm-hmm. gàtt daal mm-hmm. tey jii nii xëy na tabaski boobu ñuy wax dañuy wax lan moo ko waral ndax nit ki lépp loo xamante ne si mu ngi ciy dugg wala mu koy def day day xam d'abord lii fan la commencé ak lan la ko ci diineem wax tabaski mi ngi soq ko ci sunu maam Ibrahim Ibrahim di maam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam toogoon lu yàgg amul woon doom ba yàlla wërsale ko benn doom bu ñuy wax isma ismail léegi noonu di ko yàlla war wërsëgalee ñoom yonent yi dañuy faral di def bu ñu tëddee dañuy génn te ñoom luñ génn dëgg la mu tëdd ba guddi benn doom boobu ko yàlla jox nga xam ne dem na ba màggat door koo am mu gént yàlla ni ko rendi ko mm-hmm. ñoom luñ gént dëgg la bi ko yàlla ne rendi ko moo xam ne moom lii mu gént dëgg la mu ñëw ci doom ji ismail wax ko ko mu ne ko yaabu naya inni ara fil manaami ani ka man de sama doom dama gént yàlla ne naa la rend doom ji ne ko fan jour maza kii après Ibrahim ne ko fan jour maza tara léegi na yow nan nan nga ko gisee man de yàlla dafa ni naa la rend nan nga ko gisee nag léegi mu ne ko sa tëjudi ni incha allahu mina saabirin mu ne ko léegi defal li nga xamante ni si moom la la yàlla sant man di ma fekk may aji muñ moom doom ji moo ko wax de papa ji moo gént yàlla ni ko rendil sa doom ji mu ñëw wax ko ko moom tamit mu d'accord ci ak moom. Mhm. ni ko comme yàllaa la ko sant def ko. Mhm. léegi ba tey loolu doyul mu ni day dem ci yaay ji moom tamit wax ko ko comme ñoom ñaar ñoo bokk doom ci mu dem wax ko ko ni ko man dama gént yàlla ni nan rey suñ doom ji soxna si tamit àndi ci ak moom léegi boo xoolee ñett yooyu danga ciy déggee ñett danga ciy déggee jaam bu nangul boroomam muy mhm. Ibrahim ndax yàlla da ko wax rek ni ko defal xam nga ni nga toog lu mat juróom-ñeent fukki at amoo doom. Mm-hmm. yàlla may la benn doom muy góor mu xëy na la rendi ko lool metti na. kon kooku jaam bu nangul boroomam la. Mm-hmm. da ci déggee doom ju nangul waaye waajuram. Mm-hmm. ndaxte bu doon keneena tey jii ni sa papa ñëw ne la yàlla nee na naa la rendi soo moytuwul booy dem. say daal fa nga koy bàyyi. <laughs> da ngay daw. ni ko loolu duma ko def jar na nga gàddaay génn dëkk bi yëpp. mais nangu gim nangu kooku da nga ciy dégg tamit doom ni mu nangulee waajuram euh, mu ñëw ci soxna si tamit da nga ciy déggee soxna su nangul borom këram mm-hmm. ndaxte euh, ak âge yin toog amuñu doom yàlla may leen benn doom mm-hmm. te te booba moom wujjam dafa am doom moom wujjam am na am na doom kenn ku ne am benn doom mm-hmm. tey jii bu doon keneen a dina ko ni lan moo tax yàlla néew la nga rendi déemu diw di rendi sama doom mais da cee d'accord ak moom da cee d'accord ak moom léegi ñu tënk rek noonu bi mu àndeek Ismaayil ba war koo rendi ji seytaane sax mi ngi dajeeg ñoom bi mu dajeeg ñoom mi ngi naan Ibrahim euh, Ismaayil naan ko yow dangaa ñàkk fayda lu tax nga nangu sa papa di la rendi Ibrahim di jël ay xeer kii Ismaayil di jël ay xeer di ko ko sànni nee nañ sax loolu moom moo waral sànni jamra Ismaayil xeer yooyu mu doon sànni Iblis moo waral sànni jamra léegi ñu dem léegi bu ñu demee ba ci bërëb bi ñu ko war a rendee ba Ismaayil préparé euh, Ibrahim préparé yépp Euh, takk bëti Ismaayil génne paaka bi euh, ñu tënk rek bi mu demee bay rendi xar ñoom yàlla ya daal di yónni Jibriir malaaka dafa gaaw mm-hmm. Jibriir daal di naaw dem ca àjjana jële fa benn xar mm-hmm. moom la yàlla di wax naa fa day naaxu bi sibhin azimin mm. yàlla jote ko kuy mu mag bi mu tëralee Ismaayil jël paaka bi dem bay rendi rek bi mu rendee dafa geesu gis Ismaayil ci ci ci kiiwam mm-hmm. yàlla jote ko xar moomu kon tabaski foofu la commencé. Mhm. xam naa ne yàlla jubluwu ci woon sax pour mu rendi doom bi mhm. mais yàlla da ko doon testé ngëmam fan la toll. Mhm. kon ñun foofu lañ war a delloo sunu xel. xalaat bu baax a baax a baax. comme lii soxna Anta Mbaye doon wax naan jigéen ñi fitna ji nii fitnaal seen seen seen borom kër yeeg yooyu. ak weddi njëkk gi ñuy def. bu ñu xool histoire bi de yaakaar naa. ko teg xam nga yow da nekk ak sa boroom kër. mu lay mënal di la dundal bu ñu la jëlee sa kër ndey ak sa kër baay. Mhm. bu la dundalul woon sàngalu la kon di nga mën a egg sa fii bay wax. ah gannaaw sa ndey ak sa baay sa borom kër moom moo yore sa lépp. moo lay jox lekk di la jox naan boo feebaree moo lay faj. Mhm. tabaski bi bu ñëwee am na yu ko war. ndax war naa jënd xar war naa xottil xale yi. war naa joxe dépense loolu nag bu ko bëggee boolee di jënd designer ak cheveux est-ce que loolu moom salaire am dina ko ko may wala même bu dul salaire ngay dem di liggéey di taqale mm-hmm. te yaakaar naa ni soxna su ne war ngaa xam war ngaa xam sa kii daal sa jëkkër lim mën ak lim mm-hmm. mënul mm-hmm. mën ngeen koo waxtaane seen biir néeg kenn du xam ndax nit ku soxna su ne xam na sa borom kër lim mën ak lum mënul yow wër na ne lii nga koy imposer mënu ko danga koy imposer si mu dem di ko lebi wala mu dem di def ay prêt bu ca jógee mu indi problème ci loo xamante ni si benn bis la ki sol jasineer gënul ki sol mbasin riche wala ki sol xartum benn bis nga koy sol mu jeex rawatina ñun jigéen ñi sax jour tabaski amuñ sax jot solu dëgg la dañ koy jënd teg ko foofu nu euh, jënd naa cheveux wala jënd naa jasineer doo ko sax sol bu xew amul ba nga dem tabaski bu ñëwee nii yow sa liggéey bopp rek da lay doy sëkk mm-hmm. waaw mm-hmm. may ñaax jigéen ñi bu baax a baax ñu mm-hmm. yërëm ñu yërëm ñu yërëm góor ñi man heure moo fi toogee sax góor ñi laay faral ndax wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne ay am na ci góor ñoo xam ne am na lu ñu xottee am na luñ jëndalee seen soxna jasneer waaw boobu dañ ci ñëw dafa am wax ju am solo bu benn soxna waxoon soxna si nee na man de dama daan gis wujj yi di nuróole ay yére xam bu njëkk loolu amoon bu tabaski jotee mhm. kilifa gi day xottil wujj jabar yi ñu nuroo nga xam ci ngay xamee ni ñii ay wujj la mu ne keneen ki ne ko loolu de xam nga lu tax amatul góor ñi ñoo xotteetul wax nga dëgg ku ne xot góor xott yaa ngi concurrence kuy xott yaa ngi concurrence góor ñi mhm. léegi nan la wujjee di nuroowee ndax kenn ku ne yaa ngi dem di euh, def loo xam ne tey bu ëllëgee nga daan sa moroom mhm. mais tey bu doon kilifa gi moo yor moo yor kàddu gi ci kër gi yor mm-hmm. xaalisam. Mm-hmm. ne dem leen ngeen jëndi nangam yéen ñëpp koy nuróol lool mooy am. wala am na ñoo xam danaa niróole waa diw. jox ma sama mm-hmm. xaalis. waaw ma defal sama bopp waaw ma defal sama bopp. am na soxna Anta lool am na di nga gis góor ñoo xamante ni si dañuy war a def ci kër gi defuñu fa. dem di ko waat yow tey jii di nga gis koo xamante ni si sax day jënd xar mu yam tabaskee ko. di xottil jabaram di xottil ay doomam te kër gi mu jël lool moo jënd xarum tabaski ba. kooku bu desineer ba mu sol ak cheveux ba moo ko jënd moom moom mooy góor yi nga xamante ne si. moo fi ma yàlla baal li ñuy wax Samba àllaar. Mhm. li waroon a def seen kër duñ ko fi def. dañuy wëlbati ko waa di dem waaye mais est ce que loolu nga yaakaar ni du fotu jigéen ñi tamit. mais est tamit euh, xëy na. est ce que déedéet. ndax dafa am góor ñoo xam ne noonu leen yàlla bindee. Samba àllaar mais dañuy gis góor goo xam ne day ñëw ne la lii laa am nañu xool nan lañ koy defee. nga daw ba bëgg a dee. waaw bu ko defee yow mii di soxna. soxna nag laa wax. su mhm. boobaa yow yaay jël li la sa jëkkër jox. Mhm. yaa koy dolli ba mu mat di ko ci xotti xotti ci sa njaboot xott wala yow bu dee ñàkk day am yow yaay ñàkk. Mhm. bari na jigéen ñoo xam ne bu ñu la waxee ban année la ñu gëj sol yére tabaski am na fi de am na ñuy puukarewu nag di dem di lebi di def mais am na jigéen ñoo xam ne. seen borom kër seeni njaboot. jaral na leen ñoom ñi bañ a sol bari na fi ndax góor ñi moom ñi ciy joxe lu mat bariwul boo jëlee diis ya ñaar ña ñooy joxe lu mat gis ñëpp moom dañ lay sànni lañu yor rek. loolu day indi waaw euh, loolu nit ñi di léegi. Mhm. foyer di yàqu wala nit ki ñàkk kóolute. parce que mhm. boo nekkee pendant des nekk sa borom kër. Mhm. daanaka. lu ne rek xaaj bala lay jox nga mottali ko mhm, mhm. nga toog un bon jour ñun la diw mii de pendant des années mhm. sa borom kër a ko yu day mujj yow da ngay da ngay coupé net loo defoon xol bu naqari nga koy defee am na ci ñoo xam ne ñi daanaka daal am na ci yoo xam ne yi nit ñi ci seen bopp ñoo war a amub yar am yar sa bopp daal yooyu yëpp ñàkk yar sa bopp la parce que ki nga xam ni kii moo lay sonal guddeeg bëccëg yaakaar naa ne boo defee feneen nit mhm. dangay daw ba tàkk rek waaye doo am dara dëgg la foofu rek nga mujj la surtout góor ñi bu ñu xamoon ne defal sa njaboot li ci nekk mhm. fooy defalee sa njaboot ñuy kontaan ci yow da ngay gën di avant avancé soxna Sata gis nga xale yi jigéen ñu ci bari mhm. ñu ngi joxe seen bopp ci mbedd mi tabaski gi période bi ñu toll bari na ci ñoo xam ne yor nañ fukki far ak juróom-ñett pour lan pour ku leen xottil ku leen jëndal cheveux ku jëndal leneen ak leneen ndax lan papa joo xam ne nay na nay goo xam ne du joxe dara gis nga léeg-léeg parent muy pousser doomam pour mu dem mu bon ndax bu la laajee papa lii laa bëgg nga ni ko yoruma loolu xëy na du sax mais yërëm say sa sa du mais day mujj lool nga wax poussé nit ki ci lu bon. ci lu bon ndax du raison nga ko. Euh, jamono ji moo deme noonu. te lu ko dal tey boo gi si biir nga këpp ko nday jëndi ko nangam ak nangam ji. Mhm. mais anta man tam xale yu jigéen ñi dugaluma leen loolu. léegi mhm. sama yaay joxuma euh, cheveux wala joxuma designer rek wala sama papa mhm. joxuma ko day tax ma dem jaayi sama bopp pour am ko déedéet. ndax jigéen jigéen dafa riche. jigéen dafa war a xam boppam. tey jii jigéen dara jomb ko boo toogee rek. jëkkër ju baax na la bu fekk dara passé wul mm-hmm. soo solul woon jasineer wala takkoo cheveux bis dina ñëw mm-hmm. da nga takk or danga da nga takk cheveux da nga sol jasinaire dara mm-hmm. jarta mais fi ñu koy waxee mooy maanaam li tax mu mu ci am na ci ñoom ci cas cas bi la ci cas bu baaxul bi la ñuy wax mm-hmm. xam nga koo cas boobu dañ koy éliminer mm-hmm. dëgg bu baaxul la mais am na ci côté boo xam ñi ngi dimbali seen yaay ci muy soq ñu ànd ca soq ba di wal ñu ànd di ko walle di ko jaayale cere muy fóon ñu di ko paasale loolu lépp dañ ci génn recette booy jox sa yaay kooku peut bu baax bi la mais côté bu bon bi am na ñoo xam ne loola ci seen bopp moo leen di révolter am ko yóbbee aw ma aw ma aw ma bu korite jotee nga ne aw ma ko tabaski ñëw nga ne aw ko màggal ga ñëw nga ne aw bu yàggee xale bi nga xam ne environnement bi mu ngi nekk ak ay euh, doomu baayam ci biir kër gi seen papa ñu ngi leen di jëndal jës ne xam nga toujours xale li ko poussé ci mu def lu bon dafa gaaw léegi yow nga dund nag ci papa joo xam ne moom loo wax mu ne la aw ma ko du jéem a débrouiller benn yoon loolu tamit nañu bàyyi xel ci loolu bu baax li ngay defal sa njaboot daf la war a neex loo xam yàlla moo ko gàll sa bopp yow ku mhm. jigéen yow ku góor gi xam nga jigéen ji day neex rek mu yo kii ci dépense bi wala mu xotti wala mu mhm. jënd ordinance mais loolu lépp góor ñi la ko yàlla teg mhm. rijaalu xawaa moo naa la nisaa ba pare ñoom ñooy kilifa yi jigéen ñi ba pare responsabilité boobu yëpp ci ñoom la ko yàlla teg ñoom ñoo war a euh, dundal ñoo war a dëkkal ñoo war a dëkkoo mhm. xëy na nag jigéen ji yow mën nga sa mhm. jëkkër xëy na gis nga fare yu bëri ci moom nga jàppale ko ci benn côté xam nga jigéen mooy defar ba mu baax mhm. nga bañ kenn xamal leen dara même bu ma joxul su ma amee ma defal ma ma ma defal sama bopp sol jox samay njaboot kenn du ma xamal dara dëgg la jaru ñu leen di dégg jaru ko daal ndaxte mooy góor ñi mooy loolu boo ñoom ñëpp dégg la te naruñu koo def tamit duñ ko def fa leen neex lan koy def. wala tamit tamit ah xanaa ñu di leen neexal rek ba am ci ñoom. xam nga tamit soo jour bi. Mhm. sopp nañ ci nga sol lu bees. Mhm. te ndey Ndeye Abi tey moom dañ koy xaw a laal laal góor ñi ba beneen woon jigéen amul temps góor ñi dafa am ñoom dañoo bëgg lu yomb mhm. jigéen ñi dañoo dawa dawa dawa daw ba dee daw nan ba dee yow lu ñu wax nga ni aw ma lu ñu wax nga ni aw ma yàlla bu ñu gis nga yore nag wala fukki weer ak ñaari <laughs> mm-hmm. fukki weer ak ñaari jigéen bu la ciy wax sama jëkkër xottil na ma ci ñaar ñaar yoon wala ñetti yoon du bari de mm-hmm. tabaski ba tabaski mm-hmm. la góor ñi di xotti te balaa ñuy xotti da nga danañ la waxal sa baax maam <laughs> <laughs> lu ne la ko wax ngay doog a génne sa poos loolu tam metti na metti na bu dee jigéen joo xam ne nag moom yar nan ko mooy comme éducation de base bi ngay wax lan lay mujj def ne muq mu xaaral xolam di metti mu bàyyi la xam nga ma ci ko xam duguma la nee ma man damay xam naa sama jikko jëkkër damay préparé samay doom dëgg la bu ba bu ma soxna Anta yaakaaroon tamit góor ñi fare yi fare yi ñoom metti ci ñoom de ah waaye dépense beeg fay mun ta ñàkk am la mun ta ñàkk la mun ta ah. ñàkk la un an <laughs> déedéet man góor ñi laa àndal <laughs> yow un an boo xam ne benn yoon nga ci xotti <laughs> benn yoon nga ci xotti un benn yoon nga ci xotti waaye bis bu ne yaa ngi joxe dépense rek waaye dépense gi sax léegi jigéen ñee yokk dépense <laughs> jigéen ñi moom bu ma ñëwee ci ñoom danañ xam ni moom ñëw naa ci ñoom waaye dama ne la tey ji laa góor ñi ku ci yàlla ma ma mën loo soxna nday abbi defal sa njaboot dafa neex uh-huh. mën naa dama ne yow jour tabaski jot uh-huh. sa soxna solo uh-huh. say doom solo loolu dafa war a nekk plaisir rek waaye yow nga gis koo xam ne dalay leer ni sol bi kaw ba suuf joxewu ma ci dërëm <laughs> boolu da ngay rusa wax si yegg la dara si day solu ba yegg teewoo ko wax jekk na. dana nga xam ni yow sa dërëm demul. boo ko jëlee doo ko dégg. doo ko ah, dégg doo ko ak en aucun cas kaatu ko jëlee. moo tax nag jigéen ñi tamit ñu war a. gën a vigilant ci xale yi jigéen ñi. ndax léeg-léeg su fekkente ni tamit yor nga doom joo xam ne yow laaj nga papaam. papaam na yorul. ñetti fan xale bi ñëw indil la. njëgu foofu lañ doon wax nag ci ci kaabu bu baaxul. Mhm. Mhm. côté boobu nag. ñetti fan ñetti xale bi daal di ñëw indil la njëgu jasneer yow yaa ji. Mhm. na la yaa jasneer bi de ka ma doon liggéeyal moo ma ko may. est-ce que du jar nga jóg dem ba fa mu doon liggéeyee nga laaj ko ba xam moo ko may jasneer bi wala déet. xam nga yooyu itam dafa jar a lijjanti mais ñun jigéen ñi dañoo féex dañuy toog ah, ah moo la ko may moom da def na lu baax bu subaa amu indi la ne la moom ma ko may nga am ah, moom da def na lu baax foofu rek nga koy kal xamoo fan la ko jëlee. soxna Anta day am lu la cay tegal sa ah lii de moom. sama ñax mbootaay sama ñax mbootaay li ma liggéey ci kër gi li ma daj ci kër gi moo am lu cay toll. de ma cay toll. Mhm. lu ne am naa ko ci góor. waaw booy jooy nag encouragé sa sa doomu jigéen ci muy dem def def lu bon. dana dikk bis booy jooy kenn du la nax. wala nga ne ko ah jënd ci tip nga di nga dolli balaa tabaski gi. waaw del kii sa yaram bi fan yi de moom da nga xaw a ñuul. Mhm. man gis nga kilifa buy wax loolu doomam. wallaahi fa yàlla danga may jaaxal. ragal ki ragal doom rek laa danga may jaaxal ba pare ragal ko laa gis. Mm-hmm. Mm-hmm. defaraatal sa teint bi defaraatal sa bi fan yi moom dangaa ñuul lan ma lu muy defar ci teewam. xawma ko de. <laughs> xanaa ah, tey bu doon ko am borom kër sax nga wax ko loolu mais yow koo xam ne amul borom kër yow yaa koy ànd yàlla xam ne. daje naa ak soxna Anta mbaraan bu uh-huh. bëri bi nekk ci dëkk bi. mbaraan gi tabateur gi période bi gis koo xamante ni si kii moo joxe cheveux bi. kii moo joxe jasineer bi. Uh-huh. kii moo joxe dàll yi ñoom daal far bu nekk leen am dañuy am ba am far boo xam ne moo leen di woo ak téyeer ba mhm. waaw bu ko defee nag bu jour ba jotee nga porté malade ndax xamoo koy àndal da nga jaaxle de foo jëm ah kii laa fot sam la ndeyam liggéeyul foofu <laughs> ku góor ga la ndeyam liggéeyul ndax dañuy fekk ndax xam nga dafa am koo xam ne ma nga tëdd ca gannaaw di xalam lu mhm. bu guddee day solo ba jekk tuwaaletu ba jekk defaru ñëw na yàlla bu fab sax desu uh, wecci wa ñëw nga xam ne ndeyam liggéey la ku góor ko mu jox ko samba yadd ak badd ak yee ca reet ñooy joxe sirub xaalis <laughs> waaye buñ defee ne du porté malade de ki nga mhm. xam ne ndeyam a liggéey mhm. ca moom lay dem. Mhm. te ëllëg si lu ko dal koo kenn ndeyam liggéey da ko naan jàllal fële. dëgg la doo xam foo koy jëlee ji. dëgg la yar ba daal éducation de base ba doylu ba. Mhm. yaakaar naa ni boo ko defee am na ñoo xam ne seeni doom. dañ leen a yar ba nga xam ne duñu sol lu nu moomul. dëgg la dëgg àbb duñu sol lu mhm. moomul am na ñoo xam tey. lu mu sol ko bu subaa sonn nga wax dañuy ñëw jël ko. dëgg la nit ki de base bi daf ci am solo àbbi. doylu boo doyluwul da nga yaakaar naa ni lu ne da nga ko def lu ne da nga ko xalaat lu ne da ko jéem tamal mhm. du ba pare xam nga léegi tabaski gi li tax mu metti mhm. jour bi da ngay lakke yàpp da koy jënd mhm. mooy tay baas vaccin yi ñuy ñëw man de vaccin bi laay ñëw léegi yow xale bi euh, yaa ji dana jënd tay baas bu doom ji war a sol ci suba gi bokkut ak yére bu mu war a sol ci ngoon gi ak yeneen jour yi tamit ndax ñetti fan dañ naan tabaski moom ñetti fan la ñetti fan yooyu tam nit àttanu ko neexu ba neexu nit àttanu ko léegi bu ko defee yow bu la ko say waajur joxul nga ne naa ko dem wuti ci mm-hmm. ah, mm-hmm. bu ko defee nga ne tabaski validé mm-hmm. waaye bor bor validé gul de <laughs> tabaski ba validé na ko waaye bor ba validé gul de daa nga toroxal comme Anta ni nga doon dalee ci góor ñi rek ñi nga xamante defal bi nga xamante ne si dañ cee war a defal kii seen seen kii bi ndax yonent bi la ñuy roy te yonent bi salaam salaam nee na ki gën ci ñeen mooy ki gën ci njabootam ah? te mu ni man mag maa gën ci sama njaboot moom yonent bi salaam salaam moom la ñuy roy man gis naa koo xamante ni si euh, lu mu am genre sàmba àllar la da koy dem di ko génn ca mbedd ma mhm. moom xam nga nan la mujj def dafa jël xaritam buux ko pàcc papaam oh, ne ko damaa bëgg a damaa sama papa moom eh, na ma yàlla baal ci wax jigéen rek la bëgg damaa bëgg nga dem nga mbalaanal ma ko xarit bi ci boppam mooy dem ci papa ji di mbaraan di ñëw di ko indil moom doom ñu seddu seetal loolu ndax boobu ñàkk na pexe xamatul lu muy def <laughs> moom mu cay lekk yaayam di ca lekk mm-hmm. yaay ji ni ko bàyyi ko noonu rek comme ñun ci nii rek lañ ci mën a lekkee ah. loolu tam jaaduwul la dem loolu tam jaaduwul xam nga xam nga soxna Anta sam papa wax ni ma mm-hmm. am na loo xam ne bii boo ko defee mm-hmm. muy lu la war équilibre day am ci kër gi doom ji da nga ci mën a jox da nga mën a jox sa jabar da ci mën a lekk jàmm ne béy sam ma daan wax ñaar ñii góor gu ne war na koo moytu man ko amoon ah, ma sa jabar am dem ëmb ba am juróom-ñeenti weer mu am doom xar moo ko tuddee ngay welax la loolu góor gu ne war na koo moytu loo tuuti tuuti def ko ñu dem at ba at comme li nga doon wax mhm. papa ana tabaski ga mu ni du ngeen dem ñaani la ko seet fee nee na ñaar ñooñu góor gu ne war na koo moytu mhm. tabaski lu mu tuuti tuuti bégal say doom ca la nga man dëgg la mhm. waa leeral gi ku leen déglu ku ci ne dana xar tabaski nii la war a mel te bu doon vingt cinq mille da nga ma xar mu baax bégal ci say doom bu sa jabar a ëmb ba wasin nga nga ngénte ko mm-hmm. mu sa am xaram lam mën a def mu la mun ta ñàkk daal na ko def man loolu laa defee ne moom mooy moom mooy warugar dëgg la dëgg la ñu fàttali numéro téléphone bi 88 628 10 40 88 628 10 40 ba pare soxna si sax danga nga dul bàyyi ba mu am doom nga door a lijjanti xarak loo cay def bu ëmb de dafa yàgg rek ñu ne ko càcc ni mm-hmm. soxna si tollu na diggante mm-hmm. da nga war a foofu la waxe mooy maamam da ngaa war a faggadu sa bopp foofu la waxe pour faggadu sa bopp waaw bu ñëwee ñàkk a fàgg googu anta <laughs> mooy yuru na ko mais bu doon fàgg foofu la waxe mm-hmm. dafa war ñaar ñëpp da nga ko war a fàgg xam nga sànq wax naa ko xam nga sànq naa leen tabaski douze mois la douze mois la 12 mois yooyu nag dëgg laa mën ngaa fexe nag ba dajale loo xam ne di nga ko bëggale sa njaboot lépp bañ a yàq rek lépp bañ a yàq rek épargne épargne tabaski loo am weer bu dee nga denc ko ba nga xam ne yow bu tabaski di nga bëggal sa njaboot foofu laa waxee góor ñi mais dafa góor ñoo xam ne moom mm-hmm. yàccaara rek mm-hmm. aw ma aw ma daal dañ ko taam loo xam ne mm-hmm. yoruma ko yoruma ko lijjanti ko léegi yow day mujj yow sa kër ñeme woon a ñaw bi laa fi bëgg danga ko joxe sa sa doom tey bu soloon fantu ko ba ca pooj ba ñemee woo wax na joxoo ko ko mm-hmm. mais tey bu fekkente ni woon yow yaa jënd sa tisi wala yaa jox njëgu tisi mm-hmm. da nga ne ko lii laa bëgg nga sol ko wala lii laa bëgg mm-hmm. mais xool léegi façon ñaw yi am da ngay sol sa yaram bi yëpp nekk ci biti surtout tisi gaz bi ñu génnee yooyu tamit euh, xam naa beneen émission lay doon mais war nañ cee euh, sensibiliser waat jigéen ñi rawatina yaay yi yow yaa euh, sa doom warul warulaa tër sa doom warulaa të mais ñaw loo xam ne tamit liñ naan kaas yaat laar yaat sa yaram bi yëg solu ba pare rafle mhm. moo fi am da ngay solu ba noppi rafle ñëpp di gis sa li eh, sa yaram xoolal léegi gaz yi nga xam ne ci dënn bi yëpp lay nekk. ah te boole ci koo dajee léegi li muy tàng tàng ña nga pileweer jiin yeeg eh, buddi yeeg. moom la ñuy waajal kii bi blouson yi xale bi bu Demba Ndiaye ñi ñi eh, agee. bu paree rocceeku nag. tabaski gi la ñuy waajal ki nëbbu yaramam ci sol sa blouson. Mhm. mais rocc sa yaram loolu rek la ko man a loolu rek la. ba benn jour nga wax sunu waa kër ma di leen man di jënd pilover ñu ne ma pilover yëpp jeex. dafa naan yëpp ngi piilu. boole ceeg yenuy naan naan ba mën a. mën a tabaski bi ñëwee seen yaram du ñu nangu mu kenn teg ci bët lu du jour tabaski. tabaski kese jour tabaski ñaw nag seen toq tay baas bu ko defee am na si ñoo xam ne duñu sangu yaruy naan nag comprimé yaruy naan nag yaram boo xam ne acheté au marché rek la ñuy wax noonu lañu koy làkkee marché la ñuy jënd léegi yaram bi <laughs> waaye yooyu yëpp ay feebar la lay jox waaw boo paree nag le le suite bi laa la doon bëgg mhm. suite bi boo demee feebar dafa ju rek de day na waar te bari na ci nag bari na ci jeeg joo xam ne ñu ngi koy def tamit seen borom kër yi bugguñu ko gis nga piil yi ñuy tegale yàlla xam na ne am na ñoo xam ne dañ ciy xeex guddi gi ndax borom kër yi bugguñu ko benn góor ah, buggul sa jabar di xeesal yow nan ngay toogee weeru yàlla doo sangu léegi nga bàyyi bañ ne suba la tabaski nag dégg naa li ñuy duy ci si woon ndox dugal ko ci biir douche bi suñu paree nag war a bomb nag bomb bomb mën na def ci douche bi cinq heures de temps ah, suñu génnee nag weex tàll ah soxna Anta est-ce que loolu tamit du du du borom kër yi la neex borom kër gu ci taxaw kay sa sa soxna bu ko def boobu xasaw doon ñoom la neex ñoom leen ci encouragé bu baax. <laughs> jikko yi daal lan war a defar ah. jikko yee yàqu mooy li ma wax sànq. dama ne la borom kër bu joxewul ci këram amul leen lu mu fay wax. ndax yow xeesal boobu. du sa dërëm la jar. <laughs> jaru sa bu ko waxee nga ne ko jëndoo ko. <laughs> ndax sa xaalis nga ko jënd yow mais su fekkante ni woon da ngay responsable ci sa kër di joxe sa dépense mu doy benn jigéen du la yab. am na góor ñoo xam ne nee nan ku mottali sa dépense. mottali sa kàddu boole ceeg Anta am na ñoo xam ne góor ñu xam ne pot bi ku jigéen kii di wóor moom la ñuy tocc mi ko da ngaa gisul góor ñu xel <laughs> am na ñoo xam ne dañoo xel ma wecc ngeen séddoo pot ba dara la di bàyyi <laughs> am ñoo xam ne bu ma pare ñu diw. kooku beneen kooku beneen émission la damay wax dëgg mi lépp am na côté boo xam ne dañu bëri. am na si ñoo xamante ne ak kuy diw doo bëri. dëgg la xool seen yaram weex rek ñu laa di diw dem. di ci jublu sax xees xeesal ak yow. Eh, am naa suñu temps moom dafa jeex mm-hmm, tàkk tàkk mm-hmm. tàkk mais merci à wax dëgg fa yàlla doyaluñu ci yow <laughs> doyaluñu ci émission bi macha allah am na solo ñu bàyyi la nga tàggatoo. ah, ah jërëjëf rek di wax rek nag ni ah, comme li ñuy wax rek. Mm-hmm. Ah, li ñuy wax rek du ci lenn lu dul. bëgg gis nga def am humour am na ci kaf nañ ci ree nañ ci wax nañ ci. mais di di wax rek nag ni li ñuy wax yépp gënuloo xam kenn. dara dara dara li ñuy def mooy maanaam sunu moroomu jigéen yi. ku fekkonte ni man mii sax am na ci loo xam ne lii xëy na bu nekkoon ci man su mm-hmm. ma génnee wàññi ko dëgg la loolu dong la mm-hmm. loolu dong la di wax rek nag ni di leen sant bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. di xam ne ñun ñoo ko bokk ba ma la soxlaa dangaa ñëw mooy ba ma soxlaa dafa ñëw kon may déglu euh, sant bu baax a baax waa Carrefour FM yi nga xam ne euh, fa laa jóge di sant képp koo xam ne yaa ngi may déglu di wax rek ne subhaana rabbika rabbi izzati amay chifoon wasalaamun wasalaamun wasalaamun alal mursalin walhamdulilahi rabbil alamin jàmm sutura mucce muccile zaay doonoo baati yàlla fi jàmm sax jërëjëf Euh, sata xanaa di di di di sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. di wax ni lu ci jub ci yàlla la waaye lu ci mm-hmm. dëng ci ñun la jubluwuñ ci lu dul defare dong mm-hmm. yonent bi sana alayhi wasallam na daana wax naan innama ana basharun mislukum ana kana kama kamatan saw na fa na isa nasitu fa zakiruni min def laa comme yéen rek damay fàtte comme ni mu ngeen di fàttee waaye su ma fàttee su ma fàttee ngeen fàttali ma dañuy fàttalente rek kenn matul lu baax rek lañ ci jublu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sunu technicien di nuyu tamit suñu naatangoo bi ñu fi doon toogandool muy soxna Kumba Mbaye mhm. daw rek lay def waaye jeudi bii moom dina ñëw toog fii incha allah sata toog asalaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaamatulah waaw comme ni ngeen ko déggee rek macha allah suñu ñaari invité wax nañ ci wax ju am solo léegi moom soxna Ndeye Abi moom macha allah di ngeen koy kii boo baax ci plateau bi incha allah euh, ñu leen di jox euh, dig daje rek beneen alxames ci même heure di wax góor ñi nag euh, ñukki leen poos yi ñukki leen poos yi nag te ba nay gi mhm. salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah man la soxna Anta ma maa leen di présenté émission taaru jigéen fii ci Leeral FM 104.6 di ci ànd ak soxna Kumba jeudi bu jot 5h20 ba 6h20 dinañ ko rediffusé waat 10h euh, ba 11 képp ku ñu bëgg a jot bëgg a waxtaan ci biir émission taaru jigéen nag ñu woo ci 88 628 10 40 88 628 10 40.